abone leen ci seen seen YouTube Partout TV moom leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV Euh, dal leen ak jàmm mbokki internet yi yéen ñi nga xam ne yéen ngi suivre seen chaîne YouTube bi di Partout TV n'oubliez pas de vous abonner et activer et like la vidéo ñu dikkaat nag ab tënk ci li gën a fës rek ni ki tey gannaaw nag moom mii di Guy Marius Sagna mën nañ ne nag daal dinañuy jot a gis mu defaat beneen révélation daal di xam ne ne kat euh, jamono yi ñu toll nii li ñu naqar yi du lenn lu dul barricade bi nga xam ne rek barricade nañ ko cité kër góor gi mu daal di xam ne ne kat xale yi dañoo ragal li nga xam ne mooy lacrymogène yi te jamono bi ñu toll nii kat war nañoo miin bu baax a baax lii di lacrymogène yi loole kat waral moom mii di Guy mari Sagna mu xam ne ne kat jamono bi ñu toll nii euh, dafa jaadu te tamit dafa jot képp ku nga xam ne rek taxaw na ci suñu kanam di ko utiliser ñu daal di jaar sa kaw daal di jàll euh, mbir mi ni mel dafa mel ne moom mii di Guy mari Sagna nag gannaaw bi mu ko daal di xamle rek ñu bare bari na kat kon tamit jot na te tamit yellu na rek ñu daal di dem nag daal di fas yéene dindi ji li nga xam ne moom mooy barricade bi ñu barricade cité kër góor gi fekk jamono boobu nag ñi nga xam ne rek ñoom ñooy waa Pastef frawatee nag ñi nga xam ne ñoo yor communication bi di def benn demande bu nga xam ne rek mën nañ ne ñi ngi koy jagleel képp ku nga xam ne rek yaa ngi partage ay information ñoom ñii nag ñuy xamle ne kat dañuy gis ne dañuy joxe ay information yu wérul ci kii président Ousmane def dafa mel ne dañoo remarqué ne kat ay waa APR lañ lu ci mel ne gannaaw bi ñu joxe xibaar ne barricade bi ñu barricade woon cité kër góor gi daal dinañu koy dindi te fekk mbir moomee dara amu tamit ñu dikkoon ne am na ci diggante Ousmane Sonko mbir moomee tamit ñu remarqué ne dara amu si loolee nag tax ñuy artu bu baax a baax ci ñi nga xam ne rek dañuy tas li di information yi ni mel mbir moomee mën nañu nekkoon li nga xam ne rek moom moo gën a ni ki tey ñu dikkoon pour partager ko ak yéen di leen wax ngeen di wéy te ngeen di rester seen chaîne YouTube